salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar dina wax ngeen continuer di abonné ci seen YouTube Diaw américain borom américain business. man may ñëw ci gisee Wally ak ki nga xamante ne moom moo dee ay kon euh, damay dégg ay fan si Wally yoo xamante ne ñoom suñ sañoon Wally du recevoir ay kon ay kon moo dem seeti Wally mais Wally bokkul ak yenn genre musiciens yi yi nga xamante ne donc ñoom dañuy toppante non non non Wally nekkul ci logique boobu noonu moom xol xol Baay Faal la yor comme gis jàppee ko comme boppam. Wally lu ko ay Akon defoon avant loolu fàtte na ko te fans yi tamit dañ ko war a fàtte xam ne Wally dafa tollu ci buntu liggéey di liggéey war pour defal fans yi loo xamante ne donc fu ñu toll dañuy bëgg mu bañ mu gàccaal ñun bu nu bëggee Wally du question que ne dañ ko bëgg ndax musique man sama bopp dama koy gis comme Wally teel la ñàkk papa essayant comprendre euh, ak yu bëré bëri yo xamantene dang koy gis ci sa bop gëm sa bop bi donc lool moy wane né nit ki da nga wara am motivation pour que yow bu fekkente ne da nga dem ci nit mu toroxal la nga bëgg ci mom ben affaire mu toroxal la nga takku ñafé ko comme nim ko ñafé mom ba am ko tay tay wali non la def kon bu ñu xool ci côté bobu non wali référence la ci ci bépp sëñ képp ko xamantene ni donc jeune nga bul yaakar ci kenn wala ngay daw di top ci ginnaw kenn gëmal sa bop bo gëmé sa bop jéem ñafe ñaan yàlla yàlla mooy maye ñi fi nekk ñëpp yàllaa leen may te ñi nit ñi nga xamante ni donc yàllaa leen may yow ci sa bopp war nga xalaat ne ñii nii gënul la te ëppale la benn cër ci yàlla yàlla ñëpp la fi nekkal nekkalu fi Jean wala Paul wala Moussa wala Mohamed ñëpp la fi nekkal kon tey nit ki da war a am gëm-gëmu yow nekk sa bopp ah, gëm sa bopp ba nga xamante ne tey ah, lépp lu xamante ni ñëw na nga bàyyi ko ci loxo yàlla gëm ne yàlla mooy joxe. loolu mooy priorité bi donc jeunesse yi référence la waali li mu def nii référence la ci parce que nit ki ay yées ci ginnaaw nga dem seeti ko pour bëgg mu defal la promotion nga dem mu dàq la ñu demaat ay yées ñëw mu ñëw setsi la pour teg ak yow ay procès loolu dañ ciy kontaan te képp koo xamante ni fan su waali nga dem ci war kontaan xam ne waali moom moo am ndam foofu noonu ñëwee mu dàq la danga dem làqu sa coin di job ba yàlla may la li nga am tey ba mu mën a taxaw recevoiraat la kon lii mooy wane ne Wally yoon bi mu nekkoon gañe na gañe na yoon bi parce que mi ngi ci yoon bu baax bi parce que bi bi ñu déggee interview bi bi Wally demee daf ne ko non link booy du noonu mooy que kon Wally yow tekkeegoo dara bañ lay war a mën a booleek ay nit mais léegi nag pour le moment moom macha allah bunt yi ubbeeku na international Wally Ballago Seck les chanteurs des nations fu ne moo ko soxla moo tax di daw di ñew ñi di ki te xam nga nak waali mom so yoree ce 4 4 bu baax wara doxontu ci dekk bi rek amo ben son bo ci tek ñu ne la yow tegal wali nga ne doo tegal wali ba bo nga taal sa auto parce que nak léegi mom presque booy son laalal ma nguuda amina wala nga laal ma bo ci laal day dem mo fi ne musique mom mo fi ne bu fekke da ngay deglu musique rek ci sa auto muy neex tegal wali lool mo fi ne si yaa <laughs> léegi nag donc gars yi dinañ wax ne non waa ji dafa topp Wally Seck man le peuple ñoo ma intéressé sénégalais yi ñuy traité ay dof di leen traité ay yooyu moo ay metti des fois képp kuñ fi tuutal danaa jóg pour yëkkati la amul kii amul kaa amul Jean amul Paul ñëpp laa fi nekkal c'est jaw américain c'est jaw américain borom américain business maa ngi leen di wax ngeen continuer di abonné si seen YouTube jaw américain peace and love di jaalee Eh, Hissène Habré rest in peace ñu ko ñaan yàlla xaare ko àjjana peace and love guys